ginnaaw mbasu coronavirus feebar bi di Ebola daal di newaat jamet fële ca Guinée ba jot nag si faat ba jot see faat ay bakkan yu takku ci noonu nag jëwriñ yi nga xam ne rek ñoo nekk ci nguur gi daal dinañ jël ay matuwaay yu takk rek teg ko ci boobu boobule frontière ngir rek saytu ñi nga xam ne ñooy jógee ci boobu boobule dëkk di dugg si fii ci senegal ngir ottu li nga xam ne rek moo di feebar boobu di Ebola. fële ca pencum ndaw réew mi kuréel bay sa kuréel bay saytu wàllum yoon daal di nañu daje rek nege ni démb daal di taxawal nag kuréel bi nga xam ne duppee nañ ko commission ad ngir rek euh, wax nag ci li nga xam ne rek moo yëkkati malaanu kiir laayu Ousmane Sonko ña ca ëpp nag nekk nag ñoo xam ne dañoo bokk ci Benno Bokk Yaakaar waaye ki nga xam ne nag moo di Cheikh Mbacke Baara Dolli daal di na ci àddu rek nege ni démb moom nag la mu xamle rek. mooy mënuñoo yëkkati li nga xam ne moo di malaanu kiir laayu Ousmane Sonko bu fekkee ne rek plainte bii rek dafa nekk contre x collectif des avocats bu Ousmane Sonko daal dinañu bind ab bataaxal rek ki nga xam ne moo di procureur ñoom nag lañ ciy ñaxtu rek moo di dañoo jàpp ne ñi nga xam ne nag ñoo di section des recherches bu Colobane enquête bi dañ ko jalgati ndaxte nag coow loolu ba mu jibee rek mu am ñenn ñoo xam ne rek tudd nañ ko muy benn avocat ak ab médecin ak kenn ci jarbaatu ñoo xam ne rek dañoo bokk ci Benno Bokk Yaakaar ñooñu di la jàpp rek moo di lii du dara lu dul ab complot politique ba tax na rek ñu ngay naxaaru li ni mel tey ñaan rek uh, bile enquête ñu teg ko ci yoon. ba tey rek ci mbirum Ousmane Sonko loolee avocat jàpp nag soxna ya nga xam ne nag ñoo bokk ci boobule parti rek moom la jàpp ñoom itam dañoo jàpp ne rek lii ay ab complot politique la ci noonu nag dinañ amal ay tànk nemmeeku si mbooleem këru diine ngir rek ñu ñàkk yi nga xam ne moo di président Macky Sall ngir mu teggi tànkam fi ko teg ci noonu nag ka nga xam ne rek moo jiite boobule kuréel kuréel rek di wuyoo ci benn fay moom la moo xam ne rek moo di kii di Adji Sarr dafa jàpp ne ab victime la boo xam ne rek nguur gi dañ ko séquestré fii mu toll ba di ko nëbb ay mbokkam ngir rek mu bañ a àddu ci li ba tey rek ci wàllum wër-gi-yaram mbootaay yi nga xam ne nag ñoo ŋànk lépp lu jëm ci wàllum kinésithérapeute daldi nañu amal ab. ndaje nege ni démb ñoom nag la ñuy ñaxtu rek mooy tawat ya nga xam ne ñoom ñoo ko doon faj dafa mel ni rek dafa commencé yàqu ndaxte nag ñi nga xam ne ñoo di salon de massage yi dañ cee commencé dugg ba tax na rek ñoom la ñaan nguur gi mooy ñu teg ci ñoom loxo ndaxte nag liggéey bi nga xam ne ñoo ngi koy amal dafa am ñoo xam ne teguñ ko ci yoon te sax nag boobulee liggéey ñoom jànguñ ko àddu rekk ci ñu retraité ñi ñoom nag nguur gi di leen fay rek li nga xam ne moo di seen pension waaye nag anam bañ koy jotee nekk loo xam ne metti na lool ndaxte nag rang ba dafay gudd te des fois ñu rang sax nag ba daal di yegsi rek ñu ne leen xaalis bi jeex na ba dañuy mujjee rek bàyyi ba ca ëllëg ba ci noonu nag ñuy sàkku ci nguur gi rek ngir ñu gën a yembal rek li nga xam ne moo di doxalin gi ci fan yi ñu weesu armée sénégalaise tegoon loxo nag ci base rebelle ba nekk foofu lee ca Casamance waaye boobu boobule mbir nag lu yees da cee am ndaxte ñi nga xam ne rek ñoo di boobule armée rek dañoo teg loxo ay documents yoo xam ne rek dañoo am solo lool ci noonu nag mu am ay autorités yoo xam ne rek dañoo nekk ci ginnaaw yooyu les rebelle ñi nga xam ne nag ñoo di armée sénégalaise bi ñu ngi càmbar yooyu les document fi mu nekk nii. police bu Caaroy def euh, liggéey bu am solo ginnaaw nag ba ñu tegee rek loxo ab Samba Boy bu doon wër rek euh, di ne ab agent au service d'hygiène la di lëmbe rek nag kon yi di caaro Caaroy kaw ak quartier sant yàlla boobule Samba Boy nag daal nañ ko defeere rek au parquet di ko toppee nag li nga xam ne moo di usurpation de fonction jërë ngeen jëf mbokk téléspectateurs yi ñu doon teewlu fi la ñuy daal di yem ak yéen rek ci xibaar yi tey di leen jox rek dig daje ëllëg incha allah